fu jigéen juy sàcc bagaas yi jëkkëram dawul coow coow li coow li président Macky Sall la moo xëy ngar dajjoom mboolem yéen a kaay ñu xëy ndol observateur tax nañu lu aju ci mandam bi référendum gi ku jég politique gi koy wër di xaxar ak di ko tàppaas ak yàq mbañum buur Macky Sall wax na ci lu ca nekk mu tegaat ko fa mu war a nekk Macky Sall ne amul kenn ku mën a tëye ab loxoom ne ko tey tey di nga organiser référendum ci réew mi di ko jéem a forcer ngir muy defi référendum Macky Sall ne loolee jéem ko yàqum énergie la ku jég politique gi Macky ne ku ci bëgg dox amal ay doxi laa abal place obélisque nga dox fa ba yàmp baa nga tooy wala nga toog l'observateur nañu moom président de la république di Macky yooyu le kàddu mën ko yëkkati keroog samedi ca Mbour ba ñuy amal ñeenteelu ndaje mii ñu naan université républicaine Macky Sall ne leen nekk fii naan maa ngi lijjanti ban parti moo war a am candidat ak bu ko warut am moo gën a tuuti ci sama yitte populaire nañu wax ji wax ji daal moo di Macky Sall Idrissa Seck la doon tontu ca ndaje ma ndax nee na ko a wàññax waaye li am la kon noppalul la gaa ñi mu bokkal Benno Dakar Macky Sall ne leen ku mu neex nekkal candidat c'est le cadet de mes grand place sañu mu Idrissa Seck di waa parti socialiste ku ci nekk ci ñoom jot nga sa wàll ci waxi Macky Sall ji libération nañu ba muy wax jëme ci kujje politique gi moom Macky Sall la mu jox moo di bàyyi leen ñuy ngand ngandalu moom mii xeebaate di Macky Sall enquête dina kaay nañu nekk foo di làq-làqal taxaw jonn la def dëgër këcc boole kook dëgërle Macky Sall droit dans forcé ngir ma organiser ko ci xët mu njëkku la tribune président Macky Sall baa mu waat fa wax ja mu di kenn mënuma forcé ci ay référendum kon jarul kenn di ma ñaq-ñaqal di ma teg pression Sud Quotidien nañu léegi leer na nag Macky Sall xaal naw yoonam mbirum référendum bi diggam ak kujje politique gi candidat ci biir Benno Bokk Yaakaar lu ci nekk buur Fatick di Macky la joxe na ca xalaatam Le Soleil nañu président daal li mu bëgg gudd gàtt di ci dox guddeeg bëccëg moo di consensus national di ak gu ñëpp bokk ci plan Sénégal émergent Walf Fadjri mel ne ku naan Le Soleil wax ji Macky Sall keroog samedi ba muy wax daa xool xool la président doon waxee ne li ñuy ŋawta ŋawtee ci réew mi guddeeg bëccëg di ko waxtaane mu di ay référendum ak coowal wàññi mandat bi Macky Sall nee na loolee ña wax nañu noppal seen bopp te denc seen énergie le quotidien nañu ca sali ga ca fa ndawi APR yi doon defee université républicaine fa la Macky Sall gàkkalee derub ku njëg politique gi ñi koy sonal bëgg koo teg fitna togg ko fitna guddeeg bëccëg ñoom la ba mu demoon lakk na tombee ba ca foirum Dakar lépp ab doom xibaar baa ngi ci la populaire lu jege ñaari téeméeri stand yéenekaay bi dañoo ñoo lakk ba jeex tàkk ca forum Dakar laas dañu lakk gi démb ca fajar la woon pavillon bleu moom mu di pavillon vert moo lakk ay téeméeri téeméeri million dem ci lakk gi li war a lakk gi laas yéenekaay nañu li ñu jàppagu moo di ab coupe circuit l'observateur nañu forum Dakar romb na léegi forum njënd njaay ay ronxañ aw naqar ak aw tiis mooy la ñu fa yu bari tàkk ba defub doom ña exposé woon ca pavillon vert l'observateur nañu 2015 kan la réew mi quotidien nañu mi ngi docteur Cheikh njiital port autonome bu Ndakaaru ñi ko ko def di waa réew mi quotidien xëy leeralal ñu ci journal bi fan la sukkandiku ba def Cheikh Kanté homme de l'année 2015 l'observateur mel ne ku naan ko Cheikh Kanté homme de l'année loolee bettul kenn 2015 njiital port arrive à bon port Cheikh Kanté yéenekaay bi nañu ma ca Paris la France di fa régler ay partenaires ngiri projet bokk na ci exploitation terminal ca poorum ndakaaru Aïda poorum ndakaaru la fa xewoon keroog libération ci la xëy mu di jëkkëri Aminata Touré jafa doon jaay may diw ak nii laa toll ba far mujjee ca gendarmerie ubbi leen yéen bi journal bi nañu Moussa Koulibaly mooy borom këru Aminata Touré jëfi xale dëgg la def keroog ci Aïda port Léopold Sédar Senghor ne dafa ñëw bëgg a gaare ca parking bu salon d'honneur sandarma ba fa nekk ne ko du fi jëlee sa oto nga gaare ko fële waa a Coulibaly ne ko ndax xam nga ma man maay jëkkëri Aminata Touré sandarma bi ne ko kuy Aminata Touré Coulibaly ne ko mooy ki doonoon premier ministre bu Sénégal mooy Mimi Touré xamoo ko sandarma bi ne ko négatif xaw ma Mimi Touré Coulibaly ne ko kon jaroo waxal ndax am naxa naxa nga ignorant nga jàppante fak sandarma ba ba far mujj sandarmeri